tal leen ak jàmm mbokku internet yi jongante ba ci diggante TFM ak 2STV mel na ni Adja tax na ba ñu bëri fàtte yaa Awa Mathieu ma woon ci 2STV concurrence bi ci diggante ñaari télé yi di TFM ak 2STV jeexagul benn yoon donte kenn waxu ko ci kaw mel na ni ab guerre froide am na ci diggante kile di Youssou Ndour ak El Hadj Ndiaye ñaari kër taskatu xibaar yi dafa dem ba ci ni ñuy recruter seen personnel firnde bi ci gën a leer bu ñu sukkandikoo ci waa limametti point com mooy mbirum yaa Awa mi nga xamante ne juróon na fi coow lu rëy xamante ne jotoon na xooy ay téléspectateurs yu bëri foofu la ca 2STV moom la waa TFM ne coppet yóbbu yaa awa xëy rek fase 2STV dem sëyee ak TFM anam nga mu demee ca TFM nag neexuloon responsable yi am lu leen métti moo tax ñu daal di mujj attaqué kili di Youssou Ndour jaare ko ci émission bii di célébrité et religion ñu ne déeta waay ñu daal di jël Adja Diallo ne ñu ne déeta waay ñu daal di jël Adja Diallo ne ko déjj ca gàng naayub yaa awa ga bi yaa awa demee jotoon na ca 2STV ñu daal di ut koo xamante ne nii dana ko mën a remplacer looloo waral bay El Ndiaye gi xaddiwul benn yoon te yox yoxiwul itam ndax ginnaaw dóor fayu moom itam Adja Diallo ma ne woon ca TFM moom la na coppet indi ko ca télé Mbaye 2 waaw xanaa fu jaay Dakar ku ma ko rimbax ma timbax la ko ab ping pong audiovisuel boo xamante ne mën nañ ko méngale ak guerre froide lu ci mënti am daal mel na ni Adja Diallo mii jamono ji ak xam gi mu xam 2 du noppi benn yoon ci def ay salañ-salañam ngir soppi xar kanamu télé ba ànd ak loolu ki nga xamante ne moom mooy Omaro jërë ngeen jëf